jërë ngeen jëf mbokk internet yi ginnaaw bu ñu leen duyoo daal leen nag jàmm ci seeni actualité du jour di xibaar yi gën a fës ci internet bi ñu dooree yile xibaar foofee ca diwaanu Mbuur jëmale nag ci chauffeur bi la di Dee Diop am nga xamante ni jamono ji mbirum viol moom lañ koy toppee jëmale ci benn mineur boo xamante ni kon 16 ans moom la daal di am te moom chauffeur bi lee daal dinay am daanaka lu yemook 40 ans gannaaw ba mu doxaanee xale ba xale ba bañ daal di koy delloo avance ci la daal di nag yegg ci kawam laa di koy euh, violé fi mu ne nii nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo di takk der yu nekk ca jàmm gën de mbu daal di nañ koy teg euh, loxo bu ñu dellu see si yëf ni mu demee moom mi lee nga xamante ne kon. daal dinay am sax ñaari soxna dëkk foofee ca quartier Oncade bu Mbour histoire bi ko topp nag jamono ji daal dinay rëy ba xamul fu mu koy waxee moom mi lee xale bu jigéen bii di RS nga xamante ni 16 la am maanaam mineur la moom la doon nag nekk di doxaan waaye saa su nekk rek xale bu jigéen bi daf koy repousser di ko delloo ay avance am tax nag mënatul woon supporter loolu moom góor si lee daal di nag bett xale bu jigéen bi ci néegam gannaaw ba muy ñëw di rek. sangu si ci loolee la daal di profité ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk ca kër ga fekkoon ñoom ñëpp daal di génn mu daal di nag teg plan wam ni daf koy rek euh, sàkku moom xale bu jigéen bi di RS di nettali kon dafa daal di xëcc ab serviette am laata mu koy euh, forcé ba mu ko ci lal bi nag euh, yegg ci euh, kawam moom mi leen nag mënul woon supporter boobu lépp agression sexuelle ba tax na kon mu daal di dem dénoncé ko ci noonee ab plainte daal di nañ koy déposé foofee ca police bu jàmm gën ngir loolee nag daal di nañ cay yóbbu xale bu jigéen bi seeti ab gynécologue moom mi leen kon xale bu jigéen bi nag jot naa leeral ñi di ne leen jot naa sekk ay relation sexuelle lu njëkk ak kii di ab copain wam nekk maçon waaye ki nga xamante ne nii rek moom mooy Ngor Sile daf ko daal dee forcé di dee jóg kon ba yëg ca kawam fi mu ne nii nag kon certificat médical bi daal di nay fësal loolee moom mi ne di dee jóg nag ba ñu ko tegee loxo daal di nay nangu li ñu teg si ak ndoddam ba fi mu ne daal di nañ koy placé en garde à vue. di ko toppee viol sur euh, mineur gannaaw loolee daal dinañ koy déféré ci tribunal grande instance bu Mbour di ko fas yéene àtte ci fan yi ñu dëg lii di appelu Yoff euh, Layeen 143e édition bi nag niki tey suba ak gannaaw ëllëg lañu koy euh, màggal foofee ca diwaanu rek Yoff Cambérène ak Ngor ñi nga xamante ni ñoom ñoo di Layeen yi ñu ngi jugee ko fu nekk kon dem dajaloo fa wuy ji woote kii di Seydina Limaamu Laay al Mahdi ca la mu woote woon daayilay yi fi mu ne nii nag kon ñoom ñëpp ñu ngay sol seen colin gu weex boole ci nag baatu laa ilaaha illallah ren ji nag ñoom ñi ne di communauté laayeen bokk na ci thème ba ñu choisir lii di nag jàmm ak suqaliku muy développement ci gannaaw jàngalek ki nga xamante ne moom mooy Seydina Limaamu Laay buñ ci sukkandiku mu nekk thème boo xamante ne nii actualité la rawatina nag fi nga xamante ne moom mooy langue politique gi fi mu tollu ci ay tension jamono jële ci suñu réew leneen la ñu waxtaanee ci lay euh, xibaar bokk na ci nag ki nga xamante ne nii mooy waykat bi la di Aïda Samb nekk sët ci kii la di Samb euh, Jabari sàmb euh, moom mi nag ni ki démb mu ngi doon def présentation albumum ak séance d'écoute moom Aïda Samb nag madame Diardiou boobu lépp album fi mu ne nii daal dina koy duppee nangu ci biir nag douze titres ñoom ñoo daal di am bokk na ci ci gën a fës bi di looy xof paad wala wala sax bi nga xamante xamante ni nag moo xew loolu di temps booy moom Aida Samb nag daal dina ci euh, waxtaan ci li nga xamante ni moom mooy liggéey bu yaatu ba mu ca def euh, niki nag 20 euh, février gile ci la daal di rek fësal boobu lépp album nga xamante ni daal dinay am surprise yu bari ci wàllub musicalité itam nag ci li nga xamante ni moom mooy morceau yi am na yoo xamante ni moom Aida Samb xamle na ni daal dinay daw yaram bokk na ci kon bi nga xamante moom la duppee jirim daal di ci rendre hommage ñaari waajuram yi nga xamante ni dañoo dëddu niki dem sax moom Aida Samb jooy yu méttee métti moom la daal di àndal gannaaw ba ñu tegee morceau boobule ci séance d'écoute bi mënatul wonte ay rongañam ngir fësal nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ay waajuram ni ñu ko manqué am na itam way boo xamante ni kii di Youssouma Jigéen Dour moom la ko ci daal di jagleel rax si dolli nag daal di changé li nga xamante ni moom moo di ay mélodie wam bokk ci ak featuring ku mel ni rappeur bi li di Dip Koundou Guiss moom mi la di Aida Samb nag mi ngi jox rendez-vous ay euh, fansam di leen xamal rek ni liggéey bi mu liggéey ci bi lépp euh, album te mu am solo loolu bés bu ñu ko dégloo dinañu apprécier bu baax a baax teg ci nag di sànni xeer ñi di mélomaan yi di leen wax rek dañoo war a nangu te xam ne moom Aida Samb moom mooy ndaanaan te moom moo fi nekk ba tey ci lay euh, xibaar ñu waxtaanee góor gi la di Alassane Djibi Soumaré moom mi lee 43 ans la am daal di ne niki dem kon la daal faatu si ay conditions yoo xamante ne nii leeragul ba tey moom góor si leen ak chauffeur la woon daal di nañu xam ne ni dafa daade rek xaru ñu fekk ko ci néegam foofee kon euh, ca quartier bu ñuy wax euh, Baye ca Wakam cité El Hadj Malick foofee diwaanu Wakam bu ñu sukkandikoo ci journal bi la di Libération mi di ko fësal. moom mi li daal dafa daa di xaru journal bi di préciser ni ab corde moom la utiliser takk ko ci plafon néegam soxnaam di wuyu ci turu dee mbay moom moo daal di yem ca yëf ya libération di xam na ni ba tey moom góor sile nag doon na wax rek dafa am ay bopp yu metti ci suba si laata moo faatu jotoon na ko wax sax soxnaam sile laata moo génn këram daa dee dem ay waxtu dellusiwaat jox ki nga xamante ni moom moo di ab colocataire am 1000 francs xamante ni rek moom mooy participation am ci dépense bi ñu war a togg laataa rek moo dugg ci biir néegam boobule ginnaaw ga la ko fa soxnaam fekk mu daal di faatu. loolee lan moo ko sabab fi mu ne nii nag xamaguñu ko waaye ab enquête ubbi nañ ko ngir leeral moom góor gi lee di Alassane Soumaré ana lan moo waral mu daal di yemale foofee ay fanam. ñu wax ci leneen ba jëmale da xew foofee ca diwaanu waa Padoa loolee nag mbir mu doy waar la jëmale kon ci ab histoire de détournement mineur moom mi lee ab élève boo xamante ne nii mu nga dëkk ca diwaanu waaye 15 ans la am moo jékki saay nag daal di réer lu toll ci ñetti fan moom xale bu jigéen bi Cité Mixta lañ ko mujjee gisee fekkaale ko fa ak ñaari xale yu góor. lii la nag mi ngi xew ginnaaw bañ ci interpellé benn waay bu wéyoo ci turu F ah, moom mi leen nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di takk der yu Parcelles Assainies yi li nga xamante ne moom moo di ak sàcc sax moom lañ ko doon jëkk toppee laataa ñoo gis kon xale bu jigéen ba ki nga xamante ni nag moom mooy MS dëkk ci Géejawaay moo dem présenté wu ci kanamu policier yi di leen xamal ni nag ku ñuy wax F dafa jékki saay réer ànd ak jarbaatam bi di RM ci diiru ñetti fan xamuñu fu mu nekk ci noonee kon ci la daal takk der yi def descente foofee ca cité mixta loolee ca bisub 14 février bi ñu weesu la ñoom ñi leen nag ci lañu gis ca benn appartement ñetti nit bokk na ci ku ñuy wax S moom mi lee 18 ans la am xale bu góor la tailleur moom mooy ab liggéeyam ku ñuy wax itam euh, N Ndiaye moom 17 ans la am ak élève di RM nga xamante ni 15 ans la am ñoom ñëpp ñu daal di leen buub yóbbu leen ca commissariat ba bañ leen defalee nag interrogatoire moom xale bu jigéen bi nee na mu nga woon ca cité mixta ab côté copain muy faram moo ko fa invité woon di F moom mi li sax dañ ko jàpp di ko toppee ak sàcc laata muy xamle moom xale bu jigéen bi nag kenn forcé wu ko ñoom ñaar ñoo décidé dem passé euh, na jot nañu sax seek ay relation sexuelle te loolee lépp da cee àndoon nee na ba ñu demee ba amatuñu ñu fayee appartement ba nag la copain bi génn ngir euh, sàcc noonee la ko police euh, interpellé moom xale bu góor ba nag di faram di effal la mu xamle mooy lépp li xale bu jigéen bi wax dëgg la waaye mosul woon a xam ni kon mineur la ay atam foofu la tollu teewul nag moom mi ñu daal di koy rek euh, daan fi mu ne nii euh, jàpp leen euh, defeere leen ca parquet ba moom ak xaritam bi di SG di leen toppee li di détournement de mineur. mbokk internet yi fi la ñu yem ak yéen tey ci seeni actualité du jour di xibaar yi gën a fës ci internet bi jox leen di daje ëllëg ak jàmm si yeneen xibaar.